ah dañuy wax ne jërëjëf sëriñ bi lam ñu waxoon lépp saa su ne day day gën di dëgg waxoon nañu wabil yow mi yun si ni yun si ni umu si kasa bi xat sama tey bi nga daf sama démb waaye kon a xam ne ne ba ñu andi ki Tuubaa fii ci barab bii mu def mbaaram mi fii jumaa ji nekk tey commandant bi ñëw ne nañ dindi mbaaram ah dafa naa wati naa tey ji 1912 téeméer at ak léegi maire bi toog ànd ak tànkam jox ànd ak mboolam may defe naa ne loola tey wane nañ sëriñ bi daal kanam la jëm waay amul tànk gannaaw kon alhamdulilah rabbil alamin damay bàyyi na xel rek ci loo xam ne sëriñ bi ko te yàgg bi daa waxoon ne wa min makaidil aynil mujrimi saddul muridina an taallum bokk na ci pexey seytaane dox diggante taalibe yi ak xam-xam mu kon loolu défilé ba nag suñu kanam xamoon na ko feeñaloon nag ndax bëgg buñ ci eggee ñu jël suñu matuwaay ba loolu kon nag défi mooy fexe ba seytaane dana dana dem ba jëmmi jamono woote sëriñ bi sëriñ bi ndax daa sëriñ bi daa wax ne law alima naasu maa naa baadu laa tanabi walakin lamaa jala lamaa jahilu wa talabu xayra bu nu ñu xamal leen ci man ko ñëpp dañuy dem wuti waaye bi ñu ko réeree la ñu wuti leneen daa mel nag léegi ñun ñëpp xam nañu wala bokk ñi ngi xam si ni ñaa ngi daw di ñëw kon nag nañu bàyyi xel ne seytaane tam mi ngi saxaw temm tëb liggéey bi gën a rëy mooy fexe ba dox diggante nit ñi ak xabar ndax kat alhamdulilah nit ñaa ngi xam sëriñ waaye ba tey def moo tax sëriñ bi ma ne ba tey def nañu góor góorlu fexe ba sàkku xam-xam ci anam yëpp fexe ba mën a càmbar doxini sëriñ bi akub liggéeyam ak ma ngi ni daan doxe ak ni mu daan dunde ba mën koo gën a jàllale mën koo gën a tasaare ci àdduna mën a gën a dund dëgg dëgg li nga xam ne moom la sëñ